kër ndaanaan laay wuyoo laay lii la naa damay ñibbee kër ndaanaan kër gi laay seet kër ndaanaan yi atum ndaanaan laa di ñibbee kër ndaanaan yi ku fi ndaanaan ngala ñibbil

salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu seetaan sur la télévision Mbour TV ñu dellu siwaat ak yéen seen émission bi ngeen tàmmul seen moom muy Kër Ndaanaan Kër Ndaanaan nag di jotaay bi nga xamante ni ñu seeti artistes yi ndaanaan yi célébrité xol la ñu yor ak la denc jël ko teg ko ci table bi tey nag dama toog fii ci Mbour TV samay xarit ñoo fekk si ma fii que ñu waxtaan ci musique waxtaan ci li nga xamante ni mooy euh, parcours artiste bi ba tax na te indi nag doomu Kaolack ndàngaan la bu ne der peut être code bi xam ko waaye également dafa toj Kaolack ndàngaan te ñëw fii itam toj ko euh, yaakaar naa ne kooku mooy Petit La tubaarkaal di artiste ci Petite Côte bi defe naa dama naan nettali ci làmmiñu ko de nuyu naa leen sant naa leen yéen sama maam booy maam booy waaw waaw ma sama maam booy maam. maam seera faal bay faal baage la maale nuy naa leen sant naa leen bay faal yéen murid yéen yéen murid yéen teena teelu tey déglu tey jëf lu baax te jéem a gëstu Tuuba xam la fa ne ànd ak war na nooy waaw diggante Tuuba ak Daaru Minam xewal ga fa ne faal ba tax na dama naan petit la yaay tey ci Mbour TV de waaw tey maa ngi ci Mbour TV bi bàyyi la nga nuyoog asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal mhm. asalaamaaleykum yéen waa Mbour mhm. di leen bëggee muy sama télé mhm. ndax mën naa wax ni man pëti doomi Kaolack laa waaye sama lépp Mbour la ndax yaakaar naa ni 97 ba léegi du ay fan la. xaw naa yàgg. Mhm. te man lu ma am mbuur la. Mhm. lu ma mel mbuur la. Euh, lu may tiitaroo mbuur la. Mhm. te fu ma demit drapeau mbuur laa fay taxawal. drapeau surtout ba tax ma ànd sama rakk yi ñëw. macha ngir bégal leen rek ngir jàkkaarloog sama xarit sama doomu nday muy DJ Elzo nga xam ne moom da ciy jàpp rek moom waaw ah, gis nga ñoo ah. bokk lépp <laughs> alors tey nag ñu tey ci émission mag bi ñu naan kër ndaanaan kër ndaanaan day dajale ndaanaan ni ci Petite Côte bi yëpp tey ñu tànn la tey mais tey dama bëggoon a xam kan mooy Petit La ak turu Petit La sax la turam dëgg laa bëgg a xam bala ñuy xuus sax ci waxtaan bi kan <laughs> waaw waaw waaw waaw waaw ah laa ñal mu solo uh-huh. euh, kër ndaanaan uh-huh. ndaanaan yi leen ci invité ah, gis nga waaye man hmm. maa ngi ci ginnaaw ndaanaan yi <laughs> dëgg la man ndaanaan bu ndaw laa hmm. yu mag yi rek la ma doon woo yow da ngaa baax rek. waaye man bu dee wa kàddu ndaanaan man gone gu ndaw laa ci. Mhm. Euh, petit laa nag euh, turam dëgg Cheikh Ibrahima la ma tuddee. Cheikh Ibrahima Fall dëgg la waaw Cheikh Ibrahima Fall la waaye Petit laa ji ko indi mooy. Mhm. yàlla dafa def bi may xale ba léegi ma topp euh, sama yaay mu doon woykat. Mhm. jàngal ma woy sunu kër ma fekk fay sabar. Kaolack artiste bu ma saan ñëw rek fa ngay dal. mel ni njiin sama muy simb Lamine Ndiaye. xoole juuf xoole ndeysaan maanaam géwél bu ñëw rek mhm. foofu lay foofu lay foofu lay bokk mhm. sa maam da daan xëy di taal mbana suba mbana ngoon mbana suba mbana ngoon te bu tëdd jotee mhm. boo ñëwee ci kër ga da nga yaakaar kenn dëkku fa te bu bët setee ñëpp del yaakaar àdduna bépp fa dëkk macha allah yàlla def nag man bi may doon xale bu ndaw lan may takk petit lion petit lion benn grand bu ñu wax dalifoor dalifoor moo ma daan takk gaynde damay ànd ak moom ñuy dund ñu may woo petit lion petit lion boobu nag moo màgg ba tey jii ma doon mag am na ñoom duñ mën a wax petit lion dañ naan petit rek. yem ci petit ji moo law moo indi moo waral petit ji. ndeysaan ah, ndeysaan kon foofu la sokki ko. waaw d' te ñu gis ne que tey euh, nga nekk tey ci aar tey gaa ñu gën la xam ci way simb mais tey naka nga imposé tey ba ñëw ci musique sénégalaise tey. waaw waaw waaw xam nga euh, simb. Mhm. day defar nit. dëgg la. Mhm. de un. Mhm. ci tëggkat. boo ko bëggee dina defar say loxo dina defar say not dina defar say lépp say te boo ci jaaree te topp ci ci ginnaaw ki nga xam ne moo def septembre mesure te nangul ko surtout nangul ko te nangul ko laa wax di nga man surtout tarbiw bi boo fa jaaree ba génn nag mhm. te mënoo booy boo xam ne boo mënee yàllaa la dimbali waaye du loo jàng maa la loolu simb mhm. yarut dara mhm. ci koom ci koom-koom waaye am na xam-xam muy wàllu way bi. muy mhm. wàllu tëgg mi day seetaan sax defarkat. defarkat waaw defarkat mooy kan laaj ma kan la. ki jug ngir seetaan yi. bi neex dëgg ndax simb looy sentir fu ne rek. Mhm. am na ci simb. am na ci simb danañ la woyal danañ la feccal danañ la feccal la tàccul. danañ la tëggal. Mhm. danañ la jouer spectacle yoo xam ne ci documentaire nga ko daan séen. macha allah wala nga séen ko feneen. macha allah fa nga débuté sama lépp simb la ndax sama yaay simb la daan woy ah daan ma boot. mu koy and ak mom di wujud mm-hmm. ci simbi bu juk man ko aw ba tax mu programme diké mu jox mako bama dem ba meuna demal sama bop machallah allah kon man simbu <laughs> la xam deug la musique bi nak mm-hmm. sama ben xarit bu ñuy wax pap jom pap jom moo may batterie mm-hmm. ak sama ben rak bu ñuy wax fallu fallu ki euh, Samba Dem ak sama rak ji toog Modou mbay Modou wa ñoom xirtal ci musique dama daana grand pourtant ñi di woy musique mënuñu la. mënuñu la <laughs> defar la rek. Mhm. soo ñëwee ñu dajale suñu benn clavier suñu affaire job mhm. war nañoo mën a jouer suñu live. effectivement ma gëm loolu. Mhm. soo première sortie bi nga xam ne moom laa am di ko jouer ji mu doon en live mi ngi doon Kébémer. Kébémer laajal kii jour boobu bi ma ñëwee xaw ma sax lu may woy. yàlla dogal ma jógee fa ñëwaat. def sama anniversaire. ñoom Modou mbay ñi jàpp ci ma def ko fii sedab si mbur gépp wuy si ma macha allah Mahamad anniversaire def ko fii ci l'étape l'étape mbur gépp ba tey nag maa ngi jàng yaa ci njàng bi waaw ba tey du ma nangoo mokkal <laughs> nan leer na ma leeral ndax aar aar ak téere yam saa boo xëyee gis modèle bu bees ah gis nga waay waay saa boo xëyee gis mu dagg kub bu daa bari facette daal <laughs> déggal Petit tey nag moom laa am tey seen émission Kër Ndanaan tey ma bëgg ko woon téléspectateurs yi comme nañuy gis ni que Petit ay soirée day toj ay soirée day neex ba tax na ah. man Petit Lâ kii Elzo la. su ma ko jàppee. Mhm. damay bëgg a romb Elzo. effectivement dëpp waaye naa jàpp ni man nit la kii nit la. Mhm. léegi nag soo wàccee sa bopp am ak nit ñi affaire. Mhm. bëgg nit ñi. di lijjanti nit ñi di def da nga yeewu rek mu ñëw ci mu ñëw su koy rocc doo ko yëg dëgg la kon mooy stade bu mag bi ñun duñ ci dara dañu ko dénk rek kon mm. suñ ko dénkee ñu ci bégal nit ñi nañ ko wàcce suñu bopp surtout te nag star lu mu aj aj aj bopom, ak lu mu yeg yeg yeg boppam fan sé ko def essar ndax bo tay buma woton grand théâtre di mm-hmm. woné né star la ñu na katch du yi gisuma lu dul ay chaise mm-hmm. damay xam duma dara ah way ah way duma ah len c'est sûr ñi may sétane si tay dag seen ticket sol lu rafet dima may xaliss ñoy ñoy star star yi fan ci deug la ba para don noble sol lu rafet tok man ma ngagn ngagn tok di len fecc la ko fecc la ko ki man mi man man ma du dara mm-hmm, kon na wacce sa bop surtout ma dessi ah lolu nak mo waral tay ji suma langé suma su nit ñi ñu wuy ma ba mm-hmm. ma dib taalibe macha allah bëgg Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima taalibe <laughs> taalibe moo ci am solo maa xam maa cotti eh, sama lañ man xam naa man de xamee naa yaay arañeet naa ki ma bëgg ki yaram sama yaay booy dama sagal sama yaay moo ba daan aar bi ma nekkee ndaw daan àndandoog moom yenn say ma aw ko ba wàccu ak mu naxtaan ma ba ma woyaat ma xam ni yaay booy tey jii rëccu ma ko tey nu ma neex laa koy géwél yaay géwél yaay géwél mbaayoo lay la ndaawooy géwélooy géwél bu njëkk moo daan jiitu ca xare yaa dëkku bali moom te di ko jiin soo ñibbee moo lay net mag ñi ñoo ko daan def ba mu yàgg xewaare am mag géwél la géwél sa géwél si baay géwél la géwél la géwél sa géwél si baay yaa maama way laay yee man da bëgg naa la waaw ni ki li nga nàmp rek ngay doon déwélaan ndeysaan cekk géwél laay billaay taala faal géwél laay waay man de géwél laay baabu sëriñ faalu géwél laay salim mu baay asi géwél laay sama caméra man géwél laay waaw satala satala satala satala satala waaw satala su amul ku biir kambala waaye xew nag su amul géwél ana géwél yeeg ana géwél yeeg ana géwél yeeg yabaleen ndeysaan loolu mooy eeru géwél yi ah tubaarkàlla loolu for na li ñu bàkkee tubaarkàlla for na lii daal dara fay ko mhm. mais daal dama dégg ci way wi da daan way sa yaay corrigé la ci way waaw dama ne <laughs> dama ne sama yaay moo ma daan jàngal way mhm. bi ma nekkee xale mhm. sama yaay moo ma daan jàngal way ah yaay yenn saa yi ko daan aw xama man temps dafa métti dëgg ko daan aw mu woy jaar nii ma jaar nii yenn saa nga génn gàmm mais ndeysaan daa ma wax ne eh am nga man ñi may jàngal dama naan ay eh, du foofu. mais moom du wax loolu day gestu yam ci mën mu tës dóor. <laughs> ndeysaan boobu xale laa nag léegi dafa soxor jug jooy ndeysaan mm. xam nga jooy wax dëgg yàlla nag ànd toog way wallaay wallaay mais damay forcé na ma noppil wayal ndeysaan ma continuer di woy mais damay wan kii mais nag tey rëcciwu ma ko macha allah wax dëgg yàlla ndax la mu bëggoon ci man mm-hmm. am waxuma ni man naa way nag mm-hmm. ma ni man naa ko waaye ah ñi man mm-hmm. su ma wayee danañ xam ni kii jàmbaar la. macha allah ah, mhm. loolu moo ci nekk. dëgg la parce que tey ñu gis ne que tey way euh, dafa toll benn période boo xamante ni peut être Sénégal tey dëgg la way toll na foo xamante ni peut être ñi daan tey na tey par rapport ak tey euh, sa gis-gis tey ci musique Sénégal différence bi. waaw waaw waaw xam nga euh, maanaam gis nga Elzo. Mhm. altine. Mhm. jour yu liggéey la yaakaar naa. waay mardi jour yu liggéey la. mercredi. jouru liggéey la mhm. jeudi mhm. jouru liggéey la vendredi mhm. jouru liggéey la waaye di nga sóoraale jumaa juma kon am na lu ci rax mu fi weekend du jëm ñu ngi dugg weekend comme neex liggéey comme neex dallu dimanche nag moom ñëppay dallu ñëppay dallu loolu xam nga lan lay signifié at mu jot ak weer wu jot ak fan yu jot ak bis bi jot ak lay xew ak la cay xew ku nekk li xew ak jamono moom ngay àndal ngir. Mhm. xale yi mujj juddu ak génération bi nga mën leen a nax ci ñoom li bëgg. Mhm. ba yow li nga bëgg ñu fekk si la si nga am ci sa wërsëg. nga am ci wërsëg dëgg la. Mhm. man cee tedd. waaye nag teewul wax dëgg yàlla bul juddu tey rek. bëgg a jël. way tey rek sax ci da nga war a fexe mën démb. mën démb ngir boo dajee koo xam ne démb a koy daane. fexe koo nga mën a pelloog moom ndax kii sànq rek sama rakk ji ñu ngi toog sànq rek may tooñ Modou Mbaye naa ko suba uh-huh. euh, soirée bi dama koy woy ngoyaan <laughs> mën nga am bu woy kii naa ma kon mën nga ngoyaan mën na ko laajal kii <laughs> te xam nga loolu lépp yaakaar naa ku juddoo Saalum màggee Saalum ah, yaroo Saalum ndax yaakaar naa Modou Mbaye mi tey yooyu baax yooyu soo ko indiloon woykatu Saalum bu mën a garaaw ci àdduna mhm. dina la dëggal dëggal loolu bari na ñoo xam ne nii soo lañ joxee way saalum nag danañ ko tëgg waaye duñ ko teg ci tëgg ma tëggum saalum daa am mm. ñoom tey boo leen bëgg a way ay comme nga way la leen ñaali bañ naa jaalo saala faat ma xore laay mbuub daanaka way daanaka way yàlla ndaraan yu mag yooyu. alayka rabbi salaamu salaam mu ne. sëñ Bamba sama xol bi nay koo mos a xam jàlle ko bari na ci yeneen yoo xam ne nii mi ngi sama bopp bi nelaw te xam nga mm-hmm. dama ko denc bis lay xaal ok parce parce que gis sa particularité parce que tey say soirée tey dañuy gis nga yenn saa yi nga nga daal di xumbal loolu yenn saa yi nga dugg démb mais tey euh, loolu noonu yenn saa yi looy looy répété la avant ngay dem soirée wala waaw waaw xam nga euh, maanaam lu ma mokkal la lu ma mokkal man nag ma la benn affaire loolu mooy sama euh, cat ak gars yi ñu bari na gëmuñu ko dëgg la barki alxuraanu karim billahi laahi la barki cherafan ah. musuma répété musuma répété mag sama rakk yi mais danoo yàgg ñu xamante mm-hmm, surtout ba pare beneen bi ci bés mooy dama dimbali du question dama leen kañ ñoom ñëpp ay professionnel la professionnel nag boo génnee. Mhm. day génne xam-xamam teg te bu bu tegee xam-xam moom doo ko crisé ndax day tànn li rafet mu teg. day tànn lu rafet mu déglu ko. yow mën a def loo xam ne naan mhm. ko déedéet. effectivement. ndax mhm. tey am na ci ñoo xam ne nii tey bu ñu doon woy musique ba mu yàgg nga ñëw ne leen traditionnel laa bëgg xamul luy traditionnel. traditionnel dëgg la duñ ci dem. traditionnel mooy woy wax mi ni kooraa yilif. wala xalam ko yilif mu diib toog yooyu waaw sax ci lijjantiwut ci lu ma nekk moo tax ma ni damay gore ba dee moo waral avant mooy woy kenn ma woy ko moom wallaay waay waa rëy lan ko sargal ko mm-hmm. siggil ko ndax nag li ñu boole du caaxaan mm-hmm. moom daa nekkoon ca daara ja mm-hmm. di toggal sëriñ bi man ma jiite kuréel gu góor gi mu jiiteel kuréel gu jigéen ñi ba sëriñ bi booleel ñu macha allah macha allah kon du ay caaxaan kon seen xamet foofu la woon wallaay mm-hmm. maam jaara bëgg na ma mu ko téléphone du ma woo lijjantiwut ci lu ma nekk moo tax ma ni damay gore ba dee moo waral avant mooy woy kenn ma woy ko moom wallaay waay waay rey lan ko sargal ko mm-hmm. siggil ko ndax nag li ñu boole du caaxaan mm-hmm. moom daa nekkoon ca daara ja di toggal sëriñ bi ndeysaan man ma jiite kuréel gu góor gi mu jiite kuréel gu jigéen ñi ba sëriñ bi booleel ñu macha allah macha allah kon du ay caaxaan kon seen xamet foofu la woon ci daara moom hmm. ñu tudd ko soxna jaara man ñu tudd ma Cheikh Ibra ñoom ah. doom dërëm bi gendul gaal gi taaw ma tudd ko sëriñ Touba ew eh hmm. kon sama diggante moom du tax nag hmm. barki alxuraan ko mi jëmmi Cheikh Ibra laa la giñal la lu ma wax du de ba su may tukki sax yenn saay merloo ko sama dara du baax bari yu ci ne sama carte artiste yëpp ba ma yaakaar ne man ndax dama ko fàtte ci auto hmm. wo borom auto bi tërale tax ci waxtu jeexna mama mama oh, ma séri boye ma séri boye mam jaara lay wayal man mama mama oh, ma séri boye yow dikkale dikkal way ñewal ci man ma ke ke ke ke ke ke yow séri sama xol yow kay bege kay bege sama xol yow kay bégee ma sëri boy ñu xawaare jaaraak ñu xawaare xawaare jaaraak xawaar yow sëri sama xol nga yi yow maam jaara bey yow sëri sama xol nga yow maam jaara bey yow yaa ma mën a leen jaara baara suma la tere nga bàyyi yow suma la digale nga dem yow suma la tere nga bàyyi yow suma la digale nga dem Maam Jaara jox naa la bi ak ruuy lépp yaay borom jëlal fabal kee nag. présentel présentel kee sama rakk la moo tudd Cekka. Cekka ndeysaan sama rakk la doon ku baax dëkk Gandiaye. Mhm, waa Gandiaye su ma ko xamee Modou Mbaye tax mu ñëw nekk ak man nekk bu rafet. ndeysaan booy su ma amee bis. Mhm. dañuy dañuy du duñ mën a nelaw. dañ ciy taxaw tubaab sama xew suba bi rek muy sama soirée. bi ñëpp koy waaj deme bi incha allah. waaw muy fii ci baareen rek. Mhm. ma bëgg ñëpp teew ci. kii moom it sama rakk la moo kii bokk dëkk. muy baabu seen man maa ko tudd nag baabu seen mu sëñ fàllu daa bëgg sëñ fàllu muy sama xarit di sama waay <laughs> doon ku dal uh-huh. yaru baabu ngom mi ngay dégg baabu ngom moom lañ ko tuddee tamul major waaw moom mi eh tudd la bu mag moom la mu doon ku baax kii nag sama rakk la moom it taala hmm. faal dëkk ndar borom tama di taalibe Cheikh Abdou Baaxe doon bàyyi Fall pire nag moom it bëgg Moodu Mbaye nii ndeysaan mën a tam kii moom doo demee seen kër ba ci xale yi sax ndeysaan xar yi sax yenn saa boo leen joxee tama ñu xaw koo bokk seen kër waaw waaw waaw li ma waaju na wax naan petit laa boo demee seen kër hmm? xar yi sax bu meemee nga xam ne ñëpp a mën a way waaye kii moom xar yi sax bu tàggoo baax nga xam ne ñëpp mën a way <laughs> kii nag sama diggante ak moom. moom day moom moom day Mbaye Gueye Faye man may Youssou Ndour. moo Modou Mbaye seen seen sama rak la. sama cheikh la sama xarit la. Mhm. sama lépp la séeri Ndeye faatu wallaay tubarkàlla Ndeye Fatou. ah Bayu Ndeye Khady. Mhm. Bayu Malick Ndiaye doomu Baye Pape mi ñu jooytu noppeeguñu. doomi sunu yaay jooju di ndey eh, sama xarit doon bàyyi Fall moom it di taalibe borom ngàcc Fall moom lu ma nekk suba ba ngoon mu ngi ci man rek sama ménageur mhm. muy muy saaliw mu saaliw mu Baye Aziz mu di ah, maam saaliw maa ngi koy bëggee bu baax <laughs> di leen xamal ni daal <laughs> petit laa daal a ngi nii doomi mbuur di seen doom mm. télé bi nag moom sama télé moom dëgg la mbuur fii ku fi ñëw ku ne maa la yaatal ku fi ñëwati na ma tàggu. kon leer na moo tàgguwul damay yor caabi ji di ko tëj. ah jaajaat na dégg loolu. fii ku ma bokkul. man télé bi ma bokkul. ii ku ci bokkul. xiir gi dana la dal. leer leer ne. jaajaat. kay xanaa waaru ngeen. lu ko waral. dalay dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal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

nopp sa séeri boy kon jógal jaayu bi nag suba fee lañ koy eggalee ah. maa la wax loolu ne la eh, dama ci sax waa Mbour TV que ñu ñëw. dañuy nuyu ñëpp rek. ndeysaan xam nga yow moom yaay sunu grand. ndeysaan yaay sunu xalifa yaay sunu lépp. ndeysaan yow boo waxee sax waru ñoo wax. ndeysaan mais dañuy gërëm waa télé bi rek. Mbour di gërëm waa mbuur ndeysaan di gërëm artistes yi fi nekk yëpp. macha allah waaw ndax ñoom. ñooñu yaatal. dëgg la man Kaolack dëkk. Mhm. sama mag ji Kaolack la dëkk ba tax tey dëkk bi ñu mën fay am base. kon mhm, mhm. ñu ngi nuyu artistes yëpp nag. dëgg di leen wax yal na yàlla dolli seen jàmm mais nag suba. ñoo ngi invité ñëpp ci Denis. suba day wàcc foofu day ah. wàcc foofu. dina mel ne mbàccum gerte. dama bëgg waa bu kenn des. <laughs> petit moo xewle. jeex na sargal Ousseynou Gueye. sargal nag uh-huh. xam naa ne sa anniversaire ba fa lañ koy feete. ci daggee gàtt bi ci kàttanu yàlla gàtt bi fa lañ <laughs> sama caméraman doon ku baax yaatu lool. ndeysaan doo ñoom te duñ yow. ku ñeme na nga taxaw ku ragal na nga taw sàll gi ñëw. <laughs> voilà voilà ma téléspectateur doon seetaan seen émission Kër Ndanaan. li ma nekkoon tey émission bi ah dëgg spécial béggee comme sama sama anniversaire demee la kon demee incha allah fële laa koy àggale ci ki nga xamante mooy Astou Cheikh yi Abdoulaye ak ki nga xamante mooy Modou Sey Espagne ma koy nuyu di ko ziar baax a baax waaye également sama euh, chargé de production maa ngi koy jaajëfe bu baax a baax kooku mooy Zal maa ngi koy <laughs> ziar ba di ziar itam ki nga xamante ni mooy le réalisateur Eldo mais itam maa ngi ziar preneur de son Mouhamed ak ki nga xamante moo nekkoon tamit ci chef d'édition mooy Djibi Diop Ndiaye leen dig daje incha allah dans 15 jours seen beneen seen beneen numéro émission Kër Ndanaan jërë ngeen jëf kër ndaanaan laay wuyoo laay leela naa damay ñibbee kër ndaanaan kër gi laay seet kër ndaanaan yi atum ndaanaan laa di ñibbee kër ndaanaan yee ku fi ndaanaan ngala ñibbil kër ndaanaan yi laa ñibbee kër